ziar ziar a taxa mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen di leen wax ne tey su leen déplacé wu ñëw ba fii ci Pikine ñëw teewe si open press Ndiaga Thiam Ndiaga Diop senior alias Thiatou Boston fils de Pape Diop Boston moom mooy organisé tey open press mi ngi war a bëre le dimanche 9 janvier 2022 war a bëre ak kan euh, Boy Niang la war a bëre tey ñu ñëw fekk ko fi ci open press bi tey la mardi 4 janvier 2022 sama gars yi Ndiaga Diop alias Thiatou Boston dafa mën li muy def gëm boppam nekk ci yoonam nag amagul defet amagul defet mi ngi ci suuf di dajji jëm ca kaw tey ñu ñëw bi fii ci Pikine yaa ngi waaw waaw bi de Pape Boston le fils de Pape Boston waaw waaw tey mardi 4 janvier 2022 ñoo ngi fii ci Pikine ñëw teewe open press wu Ndiaga Thiam Ndiaga Diop Senior alias Thiatou Boston mi ngi noonu waaw waaw mi ngi noonu mi ngi waaj a dugg si mi ngi waaj a dugg si le fils de Pape Diop Boston dugg si na le fils de Pape Diop Boston dugg si na ci open press bi mi ngi noonu mi ngi noonu moom la ñu boot noonu moom la ñu boot noonu Ndiaga Diop Junior dugg si na dugg si na mi ngi noonu dugg si na mi ngi noonu caatu Boston caatu Pikine mi ngi noonu dugg si na dugg ci open press bi Ndiaga dugg si na Ndiaga Diop Junior caatu Pikine caatu Boston dugg si na ci open press bi mi ngi noonu Ndiaga Diop alias Thiatou Boston alias Thiatou Boston le fils de Pape Diop Boston ngi noonu dugg si na ci open press bi dugg si na ci open press bi ndeysaan mi ngi ànd ak mi ngi ànd ak mi ngi ànd Ambu mi ngi ànd ak doomu ndeyam Ambroise waaw waaw Île de Serpent Île de Serpent mi ngi ci Karbala ñëpp a ngi ci rang yi a ci rang yi la ñu àndal mi ngi noonu Ndiaga la ñu àndal mi ngi noonu Ndiaga la ñu àndal les lutteurs de Pikine Ndiaga Junior Thiatou Boston Thiatou Boston moom la noonu Thiatou Boston dugg si na dugg ci open press bi dugg na ci open press bi Ndiaga Junior alias Thiatou Boston mi ngi noonu mi ngi noonu dugg si na ci open press bi Ndiaga Junior Ndiaga Junior fils de Pape Diop Boston Caatu Boston mi noonu Caatu Boston dugg si na ci open press bi Feeraay doomu ndeyam Feeraay moo ànd ak moom mi ngi noonu ñoom Karbala ñoom Karbala bu Pikine ñu ngi ànd ak moom Karbala bu Efkiri eh, tefes gi Ambroise mi ngi noonu Ambroise mi ngi ci wet gi Île de Serpent waaw waaw jëlal Karbala jëlal Karbala lépp ci open press bi sama gars yi waaw waaw lépp ci open press bi lépp ci open press bi ñaga Diop caatu boson ndeysaan mag jeegi noonu kooku magam la ñoo bokk ndey ak baay ndeysaan ñaga Diop dugg si na ñaga Diop dugg si na ci open press bi ñaga Diop dugg si na ci open press bi waaw mi ngi noonu dugg si na mi ngi noonu caatu Boston caatu Pape Diop Boston mi ngi noonu Ndiaga Diop Ndiaga Diop mi ngi noonu le fils de Pape Diop Boston dugg si na ci open press bi bébé mi ngi noonu il de serpent romb na ma léegi waaw waaw ci open press bi ci open press lépp ci open press bi jëlal ci wet gi Ferraille mi ngi noonu moom la àndal mi ngi ànd ak Ambroise ñu ngi noonu lépp ci open press bi sama gars yi ci open press bi lépp ci open ñoo ngi fii ci Pikine ñoo ngi fii ci Pikine tali bu mag ñëw teewe ci open press Ndiaga Diop Junior alias Thiatou Boston Thiatou Boston mi ngi noonu Thiatou Boston mi ngi noonu ndeysaan waaw waaw jëlal tëggkat yi jëlal jëwal yi jëlal jëlal tëggkat yi jëlal tëggkat yi ñu ngi noonu oh, waaw waaw jëlal tëggkat yi waaw oh, waaw ña nga jàmmale ak Thiatou Boston Thiatou Boston Thiatou Boston mi noonu di waaj ndeysaan jëlal soq jëlal soq ci wet gi jëlal soq ci wet gi caatu Boston mi ngi noonu kooku caatu Boston jëlal jëlal moom la de moom la de mi ngi noonu mi ngi noonu moom la caatu Boston mi ngi noonu caatu Boston caatu Boston mi noonu Bamba Xaadim Xaadim waaw waaw open press bi sama gaay noonu waaw waaw Fall maa ngi ziar. maa ngi delloo ziar. naka yi tey. sant bu baax a baax. yaa ngi ci kawam. waaw maa ngi ci kawam rek. Fall looy làqu. maa ngi làqu sama ruq di liggéey doole la. ana gars yi ana gars yi. waaw gars yi ñu ngi fi. fu combat yi toll. waaw combat yi ñu ngi ñu proposé. mais comme dañoo nekk ci contrat jàmbur amaguñu droit pour wax ci leen xam naa bés te am naa ne yaakaar naa ne na si 2022 defe naa contrat contrat boo signé yi war nañaa jeex xam naa na comme dañoo nekk si contrat jàmbur am na 말에 무는 거야. mais ñoo ngi laaxal fu ñu nekk di waajal boo ñu xoolee rek nga xam ne ñoo ngi waajal pare nañ ci entraînement yi comme toujours waaw pare nañ pare nañ pare nañ ku mu di doon si mbër rek pare nañ quoi waaw ku mu di doon rek mën wax ci caatu Boston tey tey la tey la mardi 4 4 ah, janvier 2022 caatu Boston war a bëre dimanche 9 janvier war a bëre ak kan Boy Niang tey nga ñëw ci open press bi loo ma mën a wax ci euh, ci caatu Boston waaw xam nga xam nga njaga dañ koy ñaan rek di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam parce que bokk entraînement comprendre mu nekk suñu waay mu nekk suñu rakk bu baax xam sunu gan. suñu na, comprendre ba open presse bi amee dafa yëg am ku ne na la comprendre kon ñoo ngi koy ñaanal ndam yàlla na ko may ndam waaw mais yow dañu jàkkaarloo waan après waaw mais amul ragal yow foog ma ñu jàkkaarloo ñoo far na bay mu ngi ci box bi mi ngi noonu di joxe ay consigne Sokh ñëw na joxe ay consigne génnaat Thiatou Boston mi ngi ci séance de box bi ndeysaan waa Pikine ñëpp a mi ngi taxaw ñoom Ile de Serpent ñëw nañu. ay waay jàmbaaru lislaam a ngi xanaa reer leen waaw waaw jëlal loolu lève ci open press bi lève lépp open press bi la job, Diop du Boston du Boston mi non un des meilleurs espoirs de Pekin un des meilleurs espoirs de Pikine mi ngi noonu job, Diop alias du Boston Ndiaga Diop alias du Boston mi l'adversaire de Boy le combat est prévu pour le dimanche 9 janvier 2022 mi ngi noonu l'adversaire de Boy Niang moom ngay am noonu Yawou Dial na Yawou Dial na Yawou Dial na teewe ci open press bi jëlal caatu Boston mi ngi noonu romb na léegi caatu Boston romb na léegi caatu Thiatou Boston mi ngi noonu jëlal Thiatou a Thiatou Boston Ambroise Ambroise ak Thiatou Boston ñu ngi noonu mi ngi njuug ndeysaan Feeraay jëlal Feeraay ci wet gi Valdo Valdo Valdo mi ngi noonu ñëw na feelu leen ndeysaan yaw jàll yaw jàll mi ci open press bi sama ci open press bi ci open press waaw jëlal Valdo Valdo ñëw na feelu rakam Valdo ñëw na feelu rakam ndeysaan Pokola ñëw na Pokola ñëw na Sokhu ñëw na Sokhu ñëw na lépp ci open press bi lépp ci open press bi lépp ci open press bi salaamaaleykum soxna si maa lay ziar. yéen lay delloo ziar bu wér. naka yi tey. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. tur bi nan la. Daba Diouf. Daba Diouf. waaw waaw tey la tey la mardi 4 janvier 2022 Ndiaga Thiam fils de Pape Diop Boston caatu Boston di def open press nga ñëw teewe ko lan moo waral sa présence. Ndiaga day suñu rakk di suñu lépp di fierté de Pikine. di jàmbaar da xale bu am jom kon su amee bésam bi dañuy bàyyi lépp lu ñu defoon ñëw teewal fi suñu maire Pape Gorgui Ndong te xam ne moom moom teewee bés bii tey mais xat-xat yeeg tax ak yëngu-yëngu yi mais bu sañoon moo fii teew ba tax ñu ñëw teewal ko fi ñu ngi ànd suñu càmmiñ góora ak sooda daanaka daal njaka daal daal moo ñu yëkkati daal moo ñu ñor di ko ñaanal la 4 janvier yal na ci am ndam lu kawe le 19 janvier na ci am ndam lu kawé jëm ci kaw sha allah wa piki nañ ko koy ñaanal ñun ñepp ngi ci ginaawam ma paré nak ma délo kàddu gi sama goor yi ak soodam yi taxaw. Euh, ma ngi ziar mon frère. ma ngi ziar. naka yi tey. ngi sant bu baax. Euh, nan la. Gora Gora Ndiaye Gora Ndiaye. Gora Ndiaye lan moo waral acte de présence bi ci open press su di Thiatou Boston. waa li ko waral sunu doom sunu xarit sunu rak.

dafa nekk xale ba pare am yar am yar ñeme entraînement gëm boppam njëkk kenn du ko dégg si dara yaakaar naa su ma juumul war naa toll ci 10 combats. su ma juumul 8 combats 8 victoire 8 combats 8 victoire te pourtant mi ngi mi ngi raam di nank nank di raam di jóg gëm naa ne ci ñi fi ñuy dégg fi suñu mag ñi dinañ ko fa dégg bu soobee yàlla. waaw waaw Jalal Jalal Jalal Sokh Jalal Valdo. Valdo jëlal soxu jëlal jëlal soxu kokoy rak setli mi ngi noonu mi ngi noonu soxu dugub soxu moom ngay am noonu Valdo Valdo wane na boppam génnaat na

Coco Erakou Mebzo Ndiaga Diop Signor alias Thiatou Boston le fils de Pape Diop Boston mi ngi open press l'adversaire de Boy Niang moom ngay am Boston, un Boston invaincu jusqu'à présent mësul daanu mi ngi noonu xamul xamul xamul la xam waaw waaw jëlal loolu jëlal jëlal jëlal loolu jëlal Ndiaga Diop jëlal Ndiaga Diop Ndiaga Diop mu am noonu ndeysaan waaw waaw Ama ñëw na Ama Baldé ñëw na Ama Baldé ñëw na Ama Baldé ñëw na Ama Baldé ñëw na ci open press mi ngi ànd ak Ama Baldé ñëw na ci open Ama Baldé ñëw na ci open press bi Ama Baldé dugg si na le challenger le futur adversaire du roi des arènes ñëw na Ama Baldé ñëw na ci open press bi Ama Baldé ñëw na ci open press bi Ama Baldé ñëw na ci open press bi waaw waaw ndeysaan na jàppale doomu ndeyam ñëw na jàppale rakam ñëw na taxawu rakam Ndiaga Diop Ndiaga Diop Junior ñëw na taxawu Thiatou Boston ndeysaan amaa ngi noonu le challenger le futur adversaire du roi des arènes Ama Baldé dugg si na ci press bi jëlal loolu a Ama Baldé ñëw na dugg si na ci open press bi Ama dugg si na ci open press bi ndeysaan ñëw na taxawu rakam ñëw na taxawu rakam ñëw na taxawu rakam ñëw na taxawu rakam ñëw na taxawu rakam a waaw may leen Ama Baldé mu fecci may leen Ama Baldé mu tuus Pape Sarr a ngi noonu waaw waaw Ama Baldé la ñu war a tëgal mu tuus Ama Baldé la ñu war a tëgal mu tuus Ama la ñu war a tëgal mu tuus mi ngi noonu Iba mécanicien Iba mécanicien Iba mécanicien Iba mécanicien Iba mécanicien waaw waaw kokoy Ambroise kokoy Ambu ndeysaan le mécanicien kokoy Ambroise waaw kokoy njaago bi Ambroise moom ngay am noonu ay ca ama ay ca ama ama balde ama balde ama balde ñëw na le challenger le futur adversaire du roi des arènes mi ngi noonu ama balde le futur adversaire du roi des arènes mi ngi noonu Ama Baldé mi noonu waaw mi noonu ñëw na ko koy Ama Baldé le fils de Falaye Baldé le fils de Falaye Baldé le Ama Baldé moom ngay am noonu ndeysaan waaw waaw wane na boppam wane na boppam Ama wane na boppam na yoonam ndeysaan toj na yoonam waaw waaw wane na Ama Baldé wane na boppam kaw sa xëy na tous amul yooyu de Modou Lo xam si làmb leel kase leel maadu leel kase loolu yaako ko wax loolu yaa ko wax ndeysaan waaw waaw ko koy Pape Sarr ko koy Pape Sarr ndeysaan le monument de Pikine l'un des monuments mi ngi noonu Pape Sarr waaw waaw loolu mat na dellu leen nag dellu leen nekkaat leen ci tuus bi Ama balde duguna na bopam gennatna Ama balde duguna na bàkku na lu neex génn na dem di len xamal ne ñu ngi dem ci combat bu mag le 9 janvier dox ci diggante ndega cham ak ki nga xamanteni mom moy moy Boy ñag le promoteur de l'avenir mom moko teug moy Ibrahima Diop. di combat bo xamanteni combat bu am solo la ci walu lamb tay nak ñu ngi fi ci Pikine fekk fi un grand champion balaa ñuy def dara dang kay bàyyi mu nuyo ak ñi koy seetaan. Ndiaga ñu ngi lay nuyu. waaw bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabil alamin maa ngi sant yàlla julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur di nuyu képp ku fi ñëw ku fi teew di nuyu presse bi Baye Balla di leen nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax a baax nag képp ku fi ñëw rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax baax di la ma saw coono daal waaw. léegi ñu jëm ci combat bu mag sa diggante Boy Niang Boy Niang xam nga ni ndaanaan la ci wàllu bëri. booy ñàgg xam nga ni ndaanaan la ci wàllu xeex day xeex day bëri Ndiaga Thiam yaa ngi jëm ci combat bu doy waar naka nga waajalee sa combat sa diggante booy ñàgg waaw ni ñu daan waajee suñu combat rek ñun moom lu ñu war rek ci combat moom la ñuy def parce que ay doomu champion doomu champion lañ te gëm nañ li ñuy def bu baax a baax c'est la première fois lañ am mbër bu mel noonu booy ñaago jàmbaar na maa ngi koy nuyu au ñoo wax ni mu pare ñun ñu ngi lu ñu war ñu ngi ñu ngi si lu ñu war quoi ñu ngi liggéey bu baax nag ñu ngi liggéey bu baax li des nag ñu ngi nuyu ñëpp nag waaw wax waa Pikine bu baax. keroog ci si keroog ci bi ci remise de drapeau bi dañ la dégg nga wax ak moom wax ak moom ay kàddu yu ñagas xamal ko ne xale nga te da nekk ci yoon te da ngaa dund da bëre lan moo tax nga wax ko loolu. waaw wax mooy li am. man doomu mbër laa mais mbuboowuma loolu rek quoi dama dem liggéey nek sumay dynamique di entraîner nek sama yoon du boy ñag momay té non non xalaatuma loolu sax xalé la dama nek sama yoon té bu la neufé inshallah allah nga won ni man xalé la inshallah allah. ndaga tam tay ñu def ben remarque gis ni Pikine ñom ñep dañu genn def ben say nek sa ginnaw combat bi moko laaj wala adversaire bi di nga am mom mo tollu noonu. wa xam nga damaa sama dynamique de victoire yalla ngi may sutural awma defet te pigine dañu bëgg nyom li moy pigine ñom ñom boy boy boy boy def lu baax mom dañuy ñëw wax deug mom boy def lu baax Pikine dañuy ñëw parce que ñun pigine lañ am fi lañ juddoo fi lañ yaroo di nuyu nak kep ku fi ñëw soxu Ama balé même ñom sen ñom Boy ñaar ku nek ci wonama xam nga wax ma dégg naa mais ñun ñop pigine la dal di nuyu waa 100 pour cent bi yëpp nag du combat combat bi sax jar na loolu jar na lii yëpp mais ñun fi ñu teg suñu bët du fii daal du fii. léegi lan ngay wax Boy Niang moom mi ngi lay seetaan laay waxal ak moom mi ngi lay dégg lan nga koy wax wuy ma waxal ak moom loo xamante ni nag bu ëllëgee diñ ko def ndax moom Boy Niang dinañ fa dem dinañ jàkkaarloog moom te xam naa ni combat bi moom da jaral lan nga koy wax. waaw jaral na ko mais man la gën a jaral. man mi nekk sama yoon booba léegi di bàyyi sama waar waa Pikine xam nañ li may wax bu baax bëriwuma tànk si mbedd mi gëm naa lu may def bu baax te moom nee naa ko bi signature bi bii passé nee naa ko bu def dara maay def lépp maay ñëw mu xaar ma bu la neexee nga xaar ma man damay ñëw waaw incha allahu rabi wax ko say mbokk yëpp nee leen njaga day ñëw man damay ñëw aw ma xaar. mais loolu fan nga ko teg ndax ku toll ni booy ñàgg nga ñëw ni ko euh, man la gën a jaral wala. ci fit nga ko teg wala ci jom nga ko teg wala ñi nga xamante ne nii ñoo nekk sa ginnaaw ci nga ko teg. non si li ma liggéey. Hmm. na damay liggéey matin au soir man li may liggéey wax dëgg fa yàlla du ma wax nag quoi mais li may liggéey gars yi maanaam xam nañ maanaam dama bëgg làmb nekkul ay cadre doomu mbër laa wala mbër moo si bëreel ba pare laa la wax danga may nuyu danga may tóojal forcé xam nga booy ñàkk fu mu la mën a yóbbu bu baax mbër la bëri na ay combat bëri na victoire maa ngay sant nag baax si ma jël hmm. non bu doon bu doon si jàng la jàng comme de juum na juumaat day bàyyi ñun duñ fu ñuy ratifié ay kii non non suñu yoon lañ nekk amul kenn ku ñuy ratifié si làmb ji laa la wax de wax ma la booy ñaag amul mbër bu may ratifié. Ndiaga dañoo gis si huit combats yëpp bala amateur yee toog combat bi jeex na ba xam dimanche mun nañ xaar loolu wala lu raw loolu. waaw gars yi nañ nañ nañ préparé seen programme fa fas yéenee waaw amul mbër boo xamante ni si nii may bëre yow di bëre yow dix minutes vingt minutes donc loolu ñaan ma ko yàlla sax. est-ce que yaa ngi sóor est-ce que yaa ngi sóor booy ñàgg ci xeex ñaari yoon est day dugg téye adversaire am dóor ko ba ñu nangu ko ci ay loxoom sama kanam day xeex est-ce que yaa ngi pare loolu sa diggante ak booy taxaw rek corps à corps. booy ñàgg musul dóor mbër mu daanu. dóor na mbër ba ñu nangu ko ci ay loxoom. waaw mais musul dóor mbër mu daanu. da ngaa dóor mbër mu daanu. saa bokkal dama ko mu daanu. Mhm. may jàng xeex man bi may jàng xeex xale laa maanaam tey jii nii gisaguñu xeex carrément parce que làmb nu mu ñëwee si man rek noonu laa koy jeexalee doomu champion laa xel laay bëre loolu làmb laaj rek loolu laay def mais bu làmb ji laajee xeex man ak moom noonu damay xeex tax sama ci kawam laa jëm lu mu indi rek ci kawam lañ laa jëm. ñan ngay woo ci combat waaw maa ngi maa ngi woo waa Pikine di woo Pape Sarr Tidiane Diop sama grand frère moo may taxaw saa su di woo di woo di woo di woo sama père Alioune Naar Mol Cissé Baye Daara Bargny di woo waa Pikine yëpp waa Curuba maa ngi leen di sant bu baax ak secteur bi moo dëkk tamit parce que gars yi heure bu ma xewlee même bu ma xewloo dama leen di gis ñoo yëkkati seen dërëm seen ñaar ni ma ko jox maa ngi leen di sant nag bu baax a baax di leen nuyu yéen bi waa Zig maa ngi leen di bu baax ak waa Mbour di nuyu waa kàkku ràkku nag sama gaay yooyu maa ngi leen di sama mbokk njaago yépp wa wa Touba ma ngi leen di siyaar ngi leen di ku lim jum di leen wo le 9 incha allah ma foxos joxos di wo Pradas bu baax baax baax pigil lañ am pigil lañ gëm di leen nuyu nak presse bu baax yo wax ko dal ko baax di wax ni supporter yi ñu jël sen temps man musuma yaq musuma yaq lamb té sama supporter respecté na leen respecté nañ ma violence ndax te balaa violence am lamb ji jeex incha allah waaw du ma leen fa yàggal incha allah maa leen di chaaree ñëpp nag. ñu ngi lay jaajëfal. waaw di kontaan bu baax nag di kontaan bu baax maa ngi chaaree ñëpp maa ngi kontaan. aha sama gars yi lépp ci open press bi ah. ñoo ngi fii ci pikin Euh, toppal bataille Njaga euh, Ndiaga Diop Boston le fils de Pape Diop Boston tay open press bi tay mardi 4 janvier 2022 mi ngi wara le dimanche 9 janvier 2022 wara à Cannes ak kan Boy ñag Ndiaga ma lay ziar. bu baax à baax. ci lo né sante yalla sante yalla bu baax. da kay yité wa ñu ngi sante yalla bu baax nak ci ce open press euh, bàyyi li ma gis fee dal na xel de. wa sante yalla rek ñun ay ndaw lañ di liggéey xam nga wa waa jox len cër xam nga mo tax bu xewle xewlee fa mu mel nii daal. nekk produit wu Pikine. waaw pur sang fi lañ juddo fi lañ yaro suñuy papa fi lañ juddo fi lañ yaro suñuy yaay ak yëpp ñu doomu d'origine doomu Pikine lañ wax deug mom yor drapeau Pikine diko ko représenté. waaw. dignement dignement ah, avec un palmarès hein remarquable de 8 combats 8 victoires. waaw non la demee 8 combats 8 victoires. lolu lan la lolu lan la. non loolu mbir yàlla rek. ah déedéet non la ci génne loolu lan la liggéey la wala lan la. non waaw liggéey si la nag parce que yàlla yàlla bay sa tool tamit ñun mais ñun dañuy liggéey nag dur dañuy liggéey wax dëgg moom dañuy entraîné bu baax ba pare nekk si lu ñu war a nekku quoi ay xale lañ gëm nañ lu ñuy def nag bu baax nag. yenn saa ma tooñ la man du ma jëw nit yenn saa ma tooñ la bu ñu waxee man leen njëg njëg caatu Boston dafa réew combat 4 secondes lay bëree quelques secondes daan nga mbër 4 secondes sama kanam 7 secondes. quelque loolu lan la. non loolu xam nga rek ñun ay doomu champion lañu. des fois nga daan mbër ne dama am doole. waa li parce que li ñuy liggéey rek xam nga boo liggéeyee moom tey jii boo ne damaa am doole nit ñi war nañu xalaat ni kii lan moo tax muy wax loolu. des fois premier contact benn songu boo teg sa adversaire teg ko ci suuf. waaw te réyu ma mais liggéey bi muy liggéey moo nekk loo xamante ni si nii maanaam bariwul ñu koy liggéey. li teg sa yaram. voilà parce que dafa ay mag ay kilifa yoo xamante ni dama leen a jox lu métti. ñu lay teg lu métti di yow fajar di la teg lu métti munoo kon non def lu lay wax quoi vraiment. mais booy euh, euh, fils de Ali melax fils de Ali jaar na fi Mori Cargo jaar na fi euh, junni jaar na fi yaa ngi may dégg tampon jaar na fi mais oh, oh booy kenn kenn du booy ñàgg rakk ji lu tax nga nga fi ñëpp dem jëli avance booy ñàgg pour lan loolu. waa jàmbaar la. jàmbaar la booy Niang jàmbaar la gëm boppam mën a bëre ñeme entraînement am fit ko koy Boy Niang mais si jàmbaar si mën la dëppoo nag quoi wax dëgg moom si jàmbaar si man la dëppoo mosoo dal ci Boy Niang wóor na sëñ Tuubaa Boy Niang du dara du dara billaahi li ñuy liggéey moo ëpp raw na romb na Boy Niang sax yow yaa wax ne Boy Niang du dara du dërëm euh, ñëw naa stade ah. mu dugg ci géew arbitre sifflé mu jàpp adversaire am duma dóor dóor bañ nangu ko ci ay loxom arbitre ne kii mënatul bëre dafa blessé ñu jël Boy Niang jox ko victoire ñu ne da koo tànn mu ñëwaat rectifié waat defaat la même chose même sément bi moom la tegaat arbitre sifflé waat mu jàpp adversaire am duma duma bañ nangu ko ci ay loxoom ne kii mënatul bëre mu doon loo xam ne daf ko def defaat ko booy ñàgg si un puncheur maanaam xeex kat la kaay xeex moo ko gënal kaay lekk booy nga dem dugg ci kooku. noo xam nga booy ñàgg ak ñooñu duñ man duñ man ak ñoom duñ benn du benn. li ñu jot a duma ak yow bokk. le neuf kay le neuf. lan différence bi. duñ benn parce que xam nga tey jii nii di nga bërek dix adversaire mais ku nekk du bokk ak sax ni nga koy daanee parce que mbër yee bokkul. mais mu ngi doog kon mu ngi doog am combat nag kon. Ah, mi ngi soog a daj. waaw mi ngi soog a daj nag. da nga nekk ci lancé di jóg di jóge ci suuf di daj jëm sa kaw nga tool ci benn niveau am adversaire yu ñu doon démarché man yëg naa ci dara ñoo ñu delloo avance bi boo ñaaga dafa nekkoon ci lancé dem ba tool ci benn niveau bi ñu ne dem na mu def erreur dafa leer daan mu bëreeg bébé Birahim ñu ne daanu na daanuwul mais bébé Birahim lañ jox victoire mu jóge ci loolu ñëw pour rectifier xam naa dafa ne nañ ma jox booy bi gën a teeng ci booy yi booy bi gën a métti ci booy nañ ma ko jox yow dalaa jël pour rek maanaam booy ñàgg dalaa jël pour pour teg la ci banc de touche bi yow mënul loolu ndax tegooguma ci banc de touche bi mais moom dalaa moom dafa daf la bëgg a daan pour ñu ne booy ñàgg moo fi njëkk a daan caatu Boston mënul loolu du woon mën ak booy ñàgg comme xam naa loolu eh, voilà kon xam nga ne kon ñu demee la moo tax ñu jël booy ñàgg waaw mais suñu xel sax romb na Boy Niang wallaahi azim. Euh, bu ëndee bëree jour ji. ma daan ko ci bu bu ëndee xeex. ma duma du may metti dama koy dóorum daanu déggoo li ma la wax bi may jàng xeex xale la maanaam damaa dajeen teguwul mbër boobu xeexkat.